waaye daal lu mu wax dëgg yàlla waaye daal lu mu wax incha allah. yemul ci Wally Seck moom nee na Youssou Ndour tamit dafa am jinne waaye Selbé Ndom nee na Wally Seck da nga koy woo ba sonn waaye du la jël du la faale. waxate ay wax ci Wally Balago Seck ak ak Youssou ma jigéen Ndour. xam nga lu tax du question gisaane dara Wally Seck moo ko liggéey moo liggéey lu mu nekkee number one ba ku tëb tëb rek Wally Seck ngay wax corona bi kay la ñuy ñaan mu jeex bu corona bi jeexee Wally Seck dina wane loo xam ne kenn musu koo gis ndax dinaa la wax benn affaire Aliou Mbaye Nder macha allah xëy na da doon da dafay doon da yàq wala xëy na investirul ba tey ñëpp di ko ñaawal di ko wax di wax di wax de Hummer en taxi maanaam ku doon dawal Hummer jékki-jékki léegi ñu lay gis nga dugg taxi mais Wally Seck gars yi nag li leen di wax nag mooy dee leen di partager euh, dee leen like parce que tamit ñun nii lañ mën a def di leen indil xibaar yi waaw de leen ñu partager dee leen partager dee leen like Rihanna move over tey sama gars yi bon man la monsieur Cheikh man ma ñëw encore une fois bëgg leen defal ben vidéo ci sel Selbé tax sel Selbé dafa ñëw génn waxati ay wax ci Wally Balago sek ak ak Youssou ma jigéen ndu lu ñu mën a les délires de Selbé Ndom ndax Selbé xamuñu ndax day gis deug deugantane wala xamuñu ndax day lépp ndax kat selbe buñ ko waxé lamb motax ñu xam selbe ndax selbe dafa wax fi waxna fi ay wax ci làmb mu am lool nak jaaxal nit ñi nit ñi bu ne mbeur bi day daanu mbeur bobu daanu yag na ko fi wax waye nak selbe tamit dafa yag am ay défaite mom ci bopam da koy wax neen bu amé victoire kenn du ko wax waye bu amé ay défaite nit ñi ci défaite yi rek la wax te défaite yi li ko waral moy dafay toog dafa am ñu koy sot yeneen sëriñ yi dañ ko iñaane di ko sot waaw bu defaree ñu yàq mais façon Selbé wax na ba am kër kon Selbé mën nañu wax ne nandité la Selbé mën nañu wax ne femme d'affaires la est-ce que charlatan la maanaam koo xam ne dafay dafay mbubuwoo di wax ne yàlla da koy wan mu profitoo di di laaj xaalis di lekk xaalis nit ñi ndax li ñu ci jaaxal mooy mooy wax na wax bi muy wax ba pare waaye fi mu mu koy jeexalee mooy Wally Seck ñaan naa ko oto waaye gisaguma oto bi loolu nag moo ci jaaxal bu fekkoon ne Selbé dafa génn mu wax li mu wax parce que moom nee na Wally Seck ci kaw rek lay dem Wally Seck number one loolu moom d'accord naa ci moom Wally Seck number one moom d'accord nañ ci Wally Seck chanteur du peuple d'accord nañ ci ndax man nii di wax sama indicatif Wally Seck number one la sama show bi way naa Wally Seck Wally Seck number one ba Wally Seck woy woy boobu su boppam Wally Seck ba mu ko déggee dafa ne Mister Shake woy bi dinaa ko woyaat dinaa ko jox sama maison de disque xam nga ni ñu ko woyee noonu laa koy woyee kon Selbé Ndom bu fekkee dafa ñëw mu confirmer mu dëggal ne Wally Seck moom mooy number one loolu dinañ ci d'accord ak moom

mais Selbé yemul ci Wally Seck moom nee na Youssou Ndour tamit dafa am jinne bu leen fàttani ne Youssou Ndour way na fi euh, woy boobu way woy woyam boobu bañ ne jinne dafa am jinne mooy way bi mu demee Mali xam xam ngeen way bi may wax mais Selbé moom dafa jaaxal nit ñi parce que nee na moom moom daal moom mooy aar Youssou Ndour moom ak Mbaye Dieye Faye ñoom ñoo aar Youssou Ndour ndax Youssou Ndour dafa amoon ñu bëri ñu ko doon fexeel waaye moom ak Mbaye Dieye fay xam nga ñoom ñoom ñooy aar Youssou Ndour so Selbé daal des day wax ay wax yoo xam ne dafay jaaxal nañ ñi ndax yow boo nee Youssou Ndour dina am xaalis walla dafa am xaalis loolu ak géej gi dafa am ndox xam nga moo yem ndax Youssou Ndour wax dëgg ñëpp xam nañ ne macha allah liggéey na loo xam ne moom ci boppam Youssou Ndour ci boppam wax na ko liggéey na loo xam ne bu ko neexoon mu bàyyi way te te dootul dootul namm dara kon Selbé booy gis dañuy dañ lay ñaan nga gisal ñu loo xam ne amul kenn xaaru ko woon lu mel ne corona nga ne corona dina ñëw wala lu mel ne Mali nga ne Mali dina ñëw waaye boo toogee di wax naan Wally Seck dina dem fu sore wala du egg fu sore loolu je pense que loolu macha allah loolu la nit ñi di ñaan te loolu je pense que loolu ñëpp xam nañ ko corona bi kay la ñuy ñaan bu jeex bu corona bi jeexee Wally Seck dina wane lo xam ne kenn mus gis ndax dina la wax ben affaire billahi wallahi taala Wally Seck dafa doon mi ngi doon tak mi ngi doon écrasé compétition dañu waxante deug Sénégal wal Seck rek moo fa doon pap Pape Diouf Pape Diouf annoncé woon na ne day dem euh, arena pour def anniversaire wal Wally Seck def anniversaire boru booru jam ñaajo musée des civilisations Wal Seck avant bob mi ngi don deug ci boîte yi avant bob vraiment mi ngi don mi ngi don écraser la compétition corona bi nak mo ñew daal arrêté lépp Wally Seck mais fu mu nekk dalay leer na Wally Seck mi ngi studio ndax euh, euh, building Faramareen boobu mu wane. macha allah macha allah building Faramareen dafa am ay studio ci biir. te dalay leer na Wally Seck mu ngi togg lu bëri. c'est vrai que ñoom mais Wally mu ngi togg lu bëri mais nag li ci doy waar mooy corona bi li muy def musiciens yi yàlla rek a xam ni musiciens yu bëri fii li ñuy jógee seen carrière yàqu Queen bis bu demee ba ne bàyyi na musique parce que. yow li nga daan foraatu sax mënatoo ko am Wally rek li tax Selbé ne Wally Seck mooy number one li tax man tam ma ne ma Wally Seck mooy number one mooy Wally Seck macha allah macha allah muus na muus boo xam ne li dal Alioune Mbaye dalu ko maanaam nga dem ba nekk sa digg ndënd ah xaalis bi bëri Alioune Mbaye Nder macha allah xëy na da doon da doon dafay doon yàq wala xëy na investir ba tey ñëpp di ko ñaawal di ko wax di wax di wax de hammer en taxi maanaam ku doon dawal hammer jékki-jékki léegi ñu lay gis ngay dugg taxi mais Wally Seck macha allah loolu dalu dalu ko ndax gis nañ building Farama ren lii investissement la lii investissement la te Wally dañ koy ñaanal mu continuer gën a sàmm xaalisam Wally fi mu muusee mooy dépassé na musique ndax Wally Seck homme daffaire la Wally Seck businessman la kon macha allah laf laf cat ñu ngi ñaanal musiciens yëpp. ñu ngi ñaan leen musiciens yëpp na corona bi gaaw a jeex waaye corona bi nag jeexugul corona bi jeexugul loolu mooy problème voilà mais gis nañ Sidi Diop mu ngi góorgóorlu dem na fi Mali jël ay risques xam nga mais loolu par benn benn la musiciens yi fu mu nekk dañoo sonn dañoo sonn dañoo sonn kon ñi ñuy wax rek mooy yàlla na fi corona bi jóge ak jàmm ak salaam ba musiciens yi continuer li ñu doon def di dem ay France di tëgg ci boit yi di def ay ay concert ñun daal loolu lañ di ñaanal jaajëf You better run, I'm You better run, is number one, car battle is one. Our mission is done. number one. While is number one capital is one. The mission is done. Paramare number one. While